mbokku Mouslih TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci seen ñetteelu émission ci darsu askar yi nga xam ne moom la ñuy jàngalante di am mbégte di daje beneen yoon ak yéen ci plateau bi di nuyu ki nga xamante ne moom mooy suñu oustaz di suñu xarit muy oustaz Seydou Diallo euh, ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal mboole mu jullit di ñëw ak yéen beneen yoon di yëggali dars yi nga xam ne ah, ci lañu nekkoon xam ngeen ne bii paase joxoon nañ leen dig daje ci aaya bi nga xamante ne ci aayaat yi nga xam ne ñoo nekk ci suratu ali imran muy inna fi xalqi samawaati wal ard boobu kon yaakaar naa ne ñu ngi woon ci Euh, di wax ci kémtaanu asamaan ak kémtaanu suuf buñ ci jógee jàng loolu lépp borom bi tabaaraka wa taala di wax ne waxti waxtilaafi leyli wan nahaar la ayaatin li ulil albaab mu ne juwarloo guddi bi ak bëccëg bi mu ne kemtaan la ci ñi nga xamante ne dañu xelu dañu am xel dañu les gens doués d'intelligence ñi nga xamante ne dañu am xel dañuy xalaat loolu mooy lan mooy dugalante guddi ak bëccëg bi xam ngeen ne euh, loolu mën nañ ci dégg lu baree bari sax ndax bu fekkee ne guddi gi day jot nga ne guddi na déggoo benn bruit déggoo lenn lu lay wan ne la guddi gi ñëw na lu dul yow dangaa toog rekk commencé gis muy lëndam nga xam ne timis mi ngi jot si guddi mi ngi ñëw heure tëdd jot na fajar jot na nga gis mu commencé waat leer loolu benn kéemtaan la te loolu yaakaar naa ne suñu jàngatee ci histoire suñu maam Ibrahima ma nga xamante ne moo demoon ca buur ba ñuy wax Namrud di ko wax ne borom bi tabaaraka wa mooy dundal mooy rey mu ne moom it day dundal day rey woo kenn rey ko woo kenn baal ko ne ko baal naa kenn rey naa kenn waaye lan la ko suñu maam Ibrahima wax daf ko ne fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriq fati biha min al maghrib fa buhita alladi kafar mu ne ko yàlla mooy ki nga xam ne mooy jëlee jant bi ci penku di ko yóbbu soow yow defal contraire bi fa buhita alladi kafar ki nga xam ne moo weddi daal di rus daa di am gàcce ndax lan daf doon diiranteeg boroom bi tabaaraka wa taala mbagg te nag yàlla du moroom boroom la du ku ñuy diiranteel mbagg moom nekkul sax koo xam ne dañ koy comparer ak kenn wala di ko comparer ak lenn ndax yamul ak kenn te yamul ak lenn ndax moom dafay wax ne laysa ka mislihi shay'un amul lenn loo xamante ne nuróo na ak moom moo tax erreur la sax di wax ne ñun dañ defar ci image yu yàlla loolu sax erreur la ñi koy wax ñépp war nañoo tuub te di delloosi bu baax seen xel ci li nga xamante ne moom mooy borom bi tabaraka wa taala ndax wax yu mel noonu dafay dugal ki nga xamante ne moom mooy nit ki ndax yonent bi salaa salaam bëri na lum ñuy euh, def ay mise en garde ci euh, jullit boo xam ne benn wax bu ndaw la wax rekk wax boobu ndërmeel ko biir safara lu yàgg yàgg yàlla nañ ci yàlla musal kon beneen ci exemple yi muy nga gis benn bébé juddu commencé di màgg nga xëy rekk gis ko muy jàng toog di jàng raam di jàng taxaw di jàng dox di dem yoonam nga gis ko muy màgg nga ne ko yow de yaa ngi màgg te yow gisoo ci moom lenn loo xamante ne daf koy màggal ba ci bëñ yi nga xamante ne moom lay génnee dangay xëy rekk gis luy génn mu feebar ko nga faj nga xëy gis muy génn waaye amul lenn loo xam ne borom bi tabaaraka wa woote na ci ndimbal keroog ba nga nekkee toq-toq man yu la nekk ak yow nekk ak yow ba ba ngay génn àdduna ba pare nag am pacte boo xam ne doxoon na sa diggante ak moom alastu bi rabbikum ñun ñépp ñu ne balaa est-ce duma seen borom ñu ne ko ahankay ñëw ci suuf nag nekkee fi lu ñu neex loolu war nañ ko seetaan te gis ngeen tudd yàlla dafay féexal xolu nit ndax borom bi tabaaraka wa mooy wax ne alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub est-ce que du tudd yàlla mooy dalal xol ñu ne ko ahankay mooy dalal xol parce que boo meree féex boo meree tudd yàlla dal di féex yandu salaa salaam jàngale ci boo meree sax naka ngay def boo kontaanee naka ngay def ba muy wax naan man de mbiru jullit yéem na ma ajaban li amril mu'min mu ne mbiru jullit bi ki gëm yàlla daal daf ma yéem mu ne bu kontaanee sant yàlla yàlla dolli bu jaaxlee sant yàlla yàlla teggil ko njàqare boobu kon tudd yàlla dafa mel ne ci xol benn kàddir booy toggee ba mu yàgg rekk kàddir bi ñuul kukk nga dem wuti xeme wala nga dem wuti eau de javel wala nga dem wuti leneen di ko dindee li nga xamante ne moom mooy xomaat xomaat boobu da ngay jékki saa gis mu weexaat tàll di melax noonu la tudd yàlla mel ci xol bu fa fekkee gàkk-gàkk wala xomaat xomaat noonu la koy xoosee ba mu set wecc nga jege sa borom tabaraka wa taala mu ne alladina yazkuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim mu ne ñi nga xamante ne dañuy tudd seen borom bu ñu taxawee ñu ngi tudd yàlla ñu ngi zikr ñu ngi jàng alxuraan ñu ngi ñu ngi xalaat ci seen bind boroom maanaam ci bind li nga xamante ne loolu la borom bi créé ñu ngi ciy xalaat mu ne wax dan ak bu ñu toogee bu ñu toogee tamit ñu ngi fàttaliku borom bi tabaaraka wa taala ñoom bu ñu toogee ci béréb tudd ñu fa yàlla sax dañuy xat dañuy genewu balaa ñuy dem faw ñu sànni fa benn aaya wala ñu sànni fa benn xadiis wala ñu fexe ba dévier waxtaan bi indi ko ci li nga xamante ne mooy li neex borom bi tabaaraka wa ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne képp koo xam ne toog nga ci place ba jóg te tuddoo fa yàlla dina nekk lay sa kaw yowmal qiyam kon ñu bëgg rek di bàyyi xel toujours ci di waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy ci borom bi tabaaraka wa taala ndax ba bokk na ci loolu soo jàngee sootu mu dasir mu lay wax ne maa salakakum fii saqar ba nga xamee ne dafa am ñoo xamante ne dañoo dem safara ñu leen di laaj lan moo leen fa yóbbu safara saqar mu ne qaalu lam naku minal musallin ñun bokkuñu woon ci ñi daan julli kon importance su julli daal di ñëw te borom bi tabaaraka wa taala di wax ne wala zikrullahi akbar moom mooy tudd yàlla bi nga xam ne mooy moo gën a mag wax yonti yàlla Moussa wa aqimi salaata li zikri sant ko ki nga xamante ne moom mooy yonti yàlla Isa moom mu koy wax kon jullee ngoog moom nee na bokkul woon ci ñiy julli kon daawul julli wala boog bokk ci ñi nga xam ne dañ daan sàgganee julli wala dañ daan fawee julli comme ni mu ko waxee ci suuratul maa'un alladina hum an salaatihim saahun ñi nga xamante ne seen julli dañuy foo ci seen julli di ci jamaj di ci julli di fottasu di julli di gestu di julli di def daal ay gestes yoo xam ne daf lay génnee ci julli bi di nga gis koo xamante ne day julli ay ati at kenn du ko nangu julli te du changé parce que yàlla moo ne bu fekkee ne julli nga ni nga war a jullee rek euh, tanha anil fahsha'i wal munkar dafay lay tax dam say cër ba doo def li nga xamante ne mooy njombuteef doo def li nga xamante ne moom mooy lu ñu sib mu ne wa ala junubihim ñi nga xamante ne bu ñu soonoo maanaam bu ñu tëddee lal seen loxo rek di xalaat di xalaat ñooñu tamit bu ñu soonoo dañuy xalaat ci li nga xamante ne moom mooy bindu yàlla mu ne wa yatafakkaruuna fii sama waati wal ard gis nga mu delloo si waat waati wal ard ndax lan ay kémtaanam dañoo bari te ay seeni kémtaan dafa rëy muy asamaan ak suuf bu nee bu xalaatee ba mu yàgg rek mu daal di wax ne rabbana ma xalaqta haza baatila yow yàlla bindoo lii ci hasard waaye bindoo lii tamit ci neen subhaanaka tudd nañ sa sell faqina azaba naar yàlla nga ñu musal ci mbëggalum safara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ yaa Aïcha ne ko lan moo doon jikkoom mu ne mooy alquranul karim waaye laajaat nañ ko mu ne da daan tudd yàlla ci xaal bu mu toll ba looloo waral am na benn téere boo xamante ne dañ ciy dellu mu tudd xisnul muslim nga xam ne lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko ñaan guddi bëccëg muy taw muy dënnu muy muy muy naaj muy ngelaw lépp loo xamante ne rek jullit bi dina ko jànkoonteel moo xam bànneex la moo xam métit la muy lekk muy naan lu mu mënti doon rek incha allah dinañ ci ñëw da ngay tudd yàlla boo paree rek daal di sant ki nga xamante ne moom mooy borom bi tabaaraka wa taala kon ñuy tudd yàlla dafay dindi li nga xamante ne mooy stress bi ñu nekkee njàqare bi nga xamante ne moom la ñuy am saa su ne da ngay gis koo xam ne daf lay wax ne la man de su ma tuddee yàlla rek dafa mel ne damay féex damay dal te nag day firndeel rek aaya ba nga xamante ne moom lañ ci wax léegi ci alaa bi zikrillahi tatma innul qulub kon xam naa incha allah ñu ngi yemale fii li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi di leen jox dig daje ci suñu ñeenteelu numéro bu soobee Maulana tabaraka wa taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi